li baax na jëlal bi weeru koor di dugg si ñenn ñi tàmm amal ay coppite si wàllum colin waaye nag ñeneen ñi dañuy yeesalaat seen vaisselle yi couple bi dañoo daal di lonkoo ànd ba ci boutique ba ngir rek jëndandoo seeni vaisselle bon ànd ak madame rek di def euh, shopping pour euh, koor bi donc euh, ma ñëw fii mu ne ma naa ko utal baraada ma dugg utal ko baraada rek xam nga les femmes en tout cas dañoo ñëw pour jënd si vaisselle pour juste préparer koor gi donc vaisselle yi surtout pour taaj ndog bi surtout loolu moom moo gën a tax. jigéen ñi fas yéene defante fépp ba ci taajub ndogu loolu waxal ñu tàmm ay vaisselle yu bees ñenn ñi sax jàpp ni dafa bokk ci ay xeetu jonge ay vaisselle rek pour préparer koor gi. chaque jour jigéen dafa war a def ba mu baax yéen bu gën a xam. ci la bokk di soo def soo lalee sa taaba def sa mise en place bu baax da ngay am lu bëri monsieur day dolli tout le temps xam nga jigéen bu nekk rek danga war a yëngu ci ay bagage yu baax yu am solo daal waaw si jonge la bokk boo toggee lu neex da koy yàkk fu rafet. ay baraada ay kaas ay glacière lépp a ngi fi lu ñuy utiliser si rek mu ngi fi. mbirum beesalaat vaisselle yi nekk na lu neex ci commerçant yi. waaw ah, weeru koor wax dëgg yàlla client yi ñëw jënd see bu baax moo wax dëgg yàlla. waaw ñu ngi ñëw macha allah mu nekk nag ñu ngi ñëw gars yi ñu ci bëri ku nekk ak préférence am la parfois ñu marié leen couleur yi ñu jël parfois ñu marié leen ay kaas ak ay thermos. comme ñu ñu nemmeeku si yeneen produit yi vaisselle yi itam seen njëg dafa daal di yokk. mbirum vaisselle bi si weeru koor be dafa yokk moom cher na moom trop cher na man xam damay jaay vaisselle si jaay laay yëngu mais affaire dafa cher bénéfice bi du bari affaire yooyu. jigéen ñi fas yéene wu ñu fàttee dara lépp lu jëm si wàllum taaj ndogu bi ci weeru koor ñoom nag dañoo daal di tàmm dem jënd ay vaisselle yu bees mu nekk lu neex ci commerçant yi